justice joxe na son verdict nee nañ man dañ continuer suñuy travaux te ñun loolu lañ doon ñaan yàlla donc wakaam moo gagné tey ñi bëgg a wakaam ñëpp tey ñu ngi fi tey wakaam ñëpp a gagné ñu ngi taalal loxo nag ñëpp duñ fi def triomphalisme duñ fi bon feetu nañ quand même parce que tamit c'est important ñëpp kontaan nañ euh, libéré nañ ñu. te lu ñuy xeex nii du sax xeex parce que aspiration la boo xam ne Wakaam yëpp ñoo ko bëgg euh, bi monsieur le maire Abdou Aziz Gueye di lancer sa campagne donc ce projet la faisait partie des points essentiels de sa campagne moom la ñuy réaliser nii on ne fait que aujourd'hui dérouler un projet c'est un projet l'Union sportive de Ouakam porté par la mairie de Ouakam donc Ouakam moo ko moom alalu Ouakam lay doon euh, ay doomi Ouakam ñoo fi liggéey koom-koom euh, bi fi bi fiy génn aussi dañ koy dugalaat si Ouakam si sport Ouakam si Ouakam incha allahu rabbi